Toujours dans votre scandale de ce 20 février 2024 sur VIP People TV la chaîne des grands tenants de bëgg ñu sànni vidéo qui entretien la woon bu doxoon ci waa ji ak waa ji ci kaw candidature est nga candidat ni mooy Bassirou Diomaye Faye nañ déglu ñu qui ji dellu si qui est mi candidat ne daa 82 yor ben dom tuddee ko Ousmane Sonko tago si jabar célibataire kooku ko jox réew mu réew mu tàkkee ko jox ñoko dal ay bu lañu fonto mais bari ñu il bi na fay sitim ji ba pare mi kenn du ko jox non ça mérite de rigoler waa na na Basirou mi siti ba je vais 82 yor ben dom tuddé Ousmane Sonko ak jabar bi célibataire ko ko jox rew mu yaqku ko de la wax <laughs> yaa de choisir titi ba yàqu am benn doom tàggoo jabar ji mooy Wuraan Jaan contemporain boobu tuddee ko Ousmane Sonko ko jox réew mu yàqu ko waa ji de la wax yéen nag laay xalaat ndax Sénégalais di ngeen ko jox réew wala du ngeen ko jox réew bi 82 am célibataire kon célibataire kenn du ko jox réew kon palais bi du am première dame de ah gars yi nañ ci bàyyi xel nag bu baax a baax.